dix ans de prison euh, contre qui n'a xam nekk moo di Ousmane Sonko pour viol mais cinq ans yi mën si pour li nga xam nekk corruption de jeunes jibi la mooy corruption de jeunes corruption de jeunes moom euh, da nga ko doon jàng ci euh, defe naa soo jàngoon en terminale dañ la koy wax ci hmm. Socrate mi mu defoon ak apologie donc bu Socrate noonu mu defoon ci li nga xam ne mooy détourner conscience de jeunes parce que hmm. daf leen doon wax ne il faut faire ac accuser votre conscience hmm. peut-être loolu la woon donc ngay la xalaat loo ñun ñëpp ah, détourner donc détournement de jeunes mooy jeunes yi l'a mëna xalaté nga né dédét wartuma xalaté ni donc il faut que ngeen doxalé ni il faut que ngeen doxalé ni ñen ñi tudde ñen ñi mën nañ ko tudde éveil de conscience pour la jeunesse mm. ñen ñi rek dañu japp né mom dafa ñëw peut-être indi lo xamné amul won ci politique bu Sénégal moy peut-être daaw ñu jël instrumentaliser la jeunesse de jël jeunesse bi yaq sen xel yépp ni leen légui kay leen ngeen xex di jambalok tak dara di jambalok état di ci dé après nak ko dé say ajurat amna ñu amna ñu ko traduire euh, non ci ëpp nak lu ko interpréter moy batay ci miram ak aji sar parce que li nga wax ni mooy au delà quand même. non non de procès non non pour corruption des jeunes mooy li ma moo tax man la moo tax man la yaa am problème. Euh, alors Adji Sarr amul woon 18 ans. mbirum euh, justice non que que euh, que Maître El Hadj Diouf moo ko roodeeloo. xaw ma Maître El Hadj jàpp ni Ousmane Sonko ko roodeeloo si affaire non non non non non dafa leen foofu de. donc loolu foofu de foofu détournement la ñuy wax détournement du wax ay corruption détournement te détournement de mineur rek Adji Sarr 18 ans am na plus de 18 ans 20 ans la am mën wax corruption de jeunes c'est-à-dire que li mu wax moom dafa leer mais démb nee naan Adji Sarr peut-être 18 ans la moo jamono jooju donte sax mais 18 ans la am Ah, débat bi am na débat mais corruption de jeune 18 ans boo euh, ko amee manga ko jàppee 18 ans boo ko amee manga ba pare ñu ni euh, nu mu tati viol répétitif mais mais euh, euh, ah. mais le procureur dafa mais le procureur dafa sukkandiku peut-être si euh, li nga xam nekk di. boobu de procès. si boobu de li nga xam nekk dossier. parce que japp ne même si viol amul sax. en terme de détournement de mineur même si viol amul sax corruption de jeunes warna meuna am si wàllu wourmel que ni Adji Sarr amoon 18 ans. non non ndax man mii si li ma jeune est lan ci def ci li lire ci si lire sama interprétation ci li lire jeune est lan ci def donc est moom cela veut dire que ne c'est pas Adji Sarr mais ay jigen ay nit ay ki ay yi nga xam ñom ñoo am ñoom ñoo am donc bu du won foofu loolu moo indi la contradiction mooy kii bu fekkente ni toutefois amul preuve ci culpabilité ni dafa violé nañ ko jéemee toppee lii. corruption des jeunes. corruption des jeunes. mooy nañ ki parce que Maître El wax na ko que ni peut-être même su viol peut-être amul sax aji sar am woon peut-être âge bu nu mel donc Ousmane Sonko. aji sar amul 18 ans gi ngeen ba am si kaddu gi que Dakar ngeen ba am encore si kaddu gi que Dakar roodeloo entre autres entre autres. 18 ans parce que procès viol la 18 ans. 18 ans. ok y' a des choses yoo xam ne euh, les majeurs est vacciné de mineur lan la mm. wax. le 18 ans plus de 18 ans ñu naan 20 ans la am ñu naan 19 ans ñu naan la 20 ans. donc am na euh, loo xam ne mooy que ni yow coupable ou non tu seras emprisonné loolu lañ fi bëgg loolu la loolu euh, mooy li mu wax léegi nag li mu wax moom dafa garaaw. et mm. puis il faut que loolu moom il faut que ñu bàyyi ci xel bu baax a baax. Mm. à l' absence de preuve ñu mën a juger ni tëj ko ci 5 ans.

Euh, cette femme médicale tu le exactement alors mhm. donc peut être le procureur peut être pour mon réquisitoire parce que les réquisitoire peut être pour oyof vous allant dans le sens exactement donc euh, preuve par rapport à pour de viol euh, alors comme par rapport à beaucoup de dossier viol preuve carrément certitude parce que tey man su ma accusé ki nga xamante ne moo di nit sans preuve defe naa ne carrément dama koy daal di tooñaat mm-hmm. parce que tey lu si mel ni viol nee naa la li nga xamante ne moo di preuve essentielle bi ñu daal di daal a soxla mooy li nga xam ne mooy certificat médical parce que mooy mun a firmeel ni carrément ni kii amaanaam yegg na si kawam wala agressé na ko wala pénétré na ko mm. donc yu mel noonu bu ñu ko amulee doo mën a mën a gëstu leneen ak leneen lu dul daal di xam li nga carrément lii de doonul carrément lu ñu soxla parce que tey mënoo am mënu mënu la jiiñ viol tey egguñu sa kaw wala agressé wala egguñu peut-être viol bëri na façon parce que agression sexuelle sa day am xam nga xool nit ki nii sa tàpp taatam sa agression la mën na la hmm. mais lu hmm. su mel ni viol amoo li nga xam ne mooy des certificat médical buy firnde loolu noonu man defe naa ne carrément procureur bi ah, nga xamante mooy décision am lay jëlaat rek parce que ba tey mbirum viol moom dañ ko daal di signé carrément ni actuellement moom képp kuñ ci jàpp moom 10 moom di nga ko dégg jëm peut-être xam naa moo tax mu daal di lancer li nga xamante ne moo di bëgg-bëgg boobu ni carrément moom gëm na ni peut-être Adji Sarr daal nañ koy violer peut-être moo tax mu daal di ñaan 10 ans parce que loolu mooy li nga xamante ne moo di peine bu daal di nangu ko daal di laal moom waaye ba tey man gëwma li nga xamante ne moo di boobu noonu am la dama la koy wax di la ko waxaat parce que nee naa la doonu ñun kese ñoo fi ne nee naa la procès bi nii boo ko yóbboo fi nga xamante ne moo di ci askanu Sénégal chaque mm. jàng jàng li nga xamante ne moo di droit am ci xam def si lépp li nga xamante ne moo di seen kémtulaay kattan ba ñu tàggal leen choisir leen teg leen fi nga xamante ne fa la ñëpp daal di sukkandikoo pour mun a am li nga xam moo di stabilité waaye tamit dund si jàmm mm. foofu noonu nañ dem ba daal li nga xamante ne moo lu citoyen bi lépp war a mun a am ñu daal di koy ñàkk kenn mënatul xam ndax man ak yow noo tolloo si justice amatul est-ce que ñu nañ mën a nangu justice bi nga xamante ne tollootul mbir yi amatul égalité donc boobu bu ñu demee ba nangu loolu noonu ma defe naa ne fu ñu jëm billaay wallaay talaay dama la koy xamalaat fu sans justice bu baax bi nga xamante ne dina mën respecter li nga xam moo di àqu mag yelleefu mm. mu si pied d'égalité bu ñu amulee loolu mm. carrément dañ changé de alors alors euh, Djibi euh, dañuy exactement si yow euh, ba léegi rek si boobu li nga xam comme dossier gis nañu aussi l'absence de pas mal de témoins Kabissaw Mamou Diallo MC Niass entre autres entre autres est ce que ñoom ils sont obligés d'assister assister wala kon war nañu war wax ni que duñu assister euh, seen implication si boobu de dossier lan la. yoon may na leen ñu bañ a ñëw mais ñoom dañu war a ñëw. formellement am nañ droit boo xam ne du ma nangu ñu bañ mais dañoo war a ñëw parce que ay témoins kele lañ ci dossier bu ni mel. Hmm. ba noppi itam nag si lu doon wax ci réquisition bi mooy l' exécution doit d' abord prouver l' existence bala ñuy joxe sax la bala ñuy dem ci réquisitoire bi mooy l' exécution. doit prouver l'existence moom ñu fexe waa na ni loolal na jàngal en droit ñu prouver l'existence viol am na procureur warul dem dans le doute procureur warul dem dans le doute si toutefois doute am procureur ci bopam mo la njëkk taxaw ni le doute profite à l'accusé donc ñom ils l'ont euh, peut-être daal di euh, demander ñu relaxé ko ils l'ont confirmé à l'avance ah dama non waxuma dama ni ah c'est-à-dire euh, li ñuy wax ni que ni réquisition dafa wara am ginaaw existence waaw kañ doit prouver l'existence donc mir bobu su réquisition amé donc ça veut dire que donc japp ni mir bi am non waxuma ni am waxuma non non doit prouver l'existence doit prouver doit prouver c'est une obligation d'abord bala ngay wax prouver d'abord ni mais li ñu dégg ni ñu nga taxaw peut-être kat ay certitude ni lii mais su lii amul ñu wutaat leneen loo xam ni euh, kii mooy li ñuy wax ni qui bu tuer son singe l'accuse de rage donc cest di mi ngi si doute boo xam ni waaw léegi nag mooy qui veut tuer son singe son chien l'accuse de rage loolu la ñuy wax léegi ñi nga xam léegi boo demee ba amatoo benn kii nga ne léegi naa ko wutal des puces à l'oreille wala des puces euh, des poux à la tête ni léegi euh, bopp bi dafa teñ non décapité bopp bi mais loolu nga koy jàppe loolu nga ko jàppe mais bala ñuy wax dara waroon nañu mën a prouver d'abord l'existence des des faits alors, si euh, euh, on a bataille, est-ce qu'en matière de crime, mhm. tes avocats ont le droit de bouder ou alors qu'on a des 100 avocats mën naa sans avocat bien sûr mais avocat également dama ko corps les avocats en matière en matière de de criminel les avocats ne représentent pas le client. Hmm. avocats ne duñu représenter leur client avocats ils ne assister leur client encore une fois alors donc euh, ñetti infraction yi moo am muy contravention ak délit jàpp neen euh, ñaari cas yu mel ah. avocat yi euh, su la neex bu assist wala comme représenté assisté mais crime dafa diis mais crime dafa diis même soo avocat sax ñoom ñoo la koy outali dañ la koy outali waaw assisté la assisté assistance de représentation fofu dafa am une différence donc le mooy différence différence mooy fait yow tey par exemple mën nga bañ ñëw comme ñu doon wax parce que lii délit la wala ay contravention ñu ni léegi sa avocat ñëw ñu négocier ko yow pour sans pour autant nga nekk fa ñu xool nan la ñuy def arrangé. ba peut nga recouvrir say droit bu fekkee ne dafa war a am looy fay nga fay ko en contrepartie. loolu ci ay mais bu fekkente ne en matière criminelle lañ wax fii ces avocats les avocats duñ la assist duñ la duñ la duñ la représenté d'abord da ngay ñëw taxaw di sa bopp ñoom ñooy défendre encore dañ lay assister ils viennent en appoint loolu lañ lay wax dañ assister mais duñ la représenté c'est-à-dire que foofu fii loolu la grave Sonko ñewul donc Sonko dafa ñew pour ñu atti mbir loolu moom moo gën ci mom xam nga da saraan naa ko saraan naa ko euh, ci ben télévision mom muy wax ni mom xam na ni sax mom mu dem mo gën ci mom mhm. donc mom mu tew mo gën mo gën ci mom parce que bo ñewul donc atte 100 pour la présence Ousmane Sonko non mën nañ ko àtte par contumace ah, donc là dans ce cas donc César donc César donc amuñ droit jël parole am nañu droit jël parole defaan mais boo jëwul wax ñoom lu nu mën a teg sa kawit say avocat mënuñu ñëw réfuter yooyu noonu defee da ñëw taxaw défendre sa bopp après ñoom ñu assister la hmm. alors absence Sonko est-ce am na impact si boo parce que suñuy xool ñu si ëpp na jàpp ne ni ki nga xam ne moo di Adji Sarr le procès bi gën a profité wu Euh, donte sax témoins yu bëri déchargé nañ ki na xam ne moo di Ousmane Sonko mais ba tey euh, absence Ousmane Sonko euh, dafa am loo xam ne wane na ko si boobu de procès. absence su Ousmane Sonko dafa wane li nga xamante ne hmm. moo di ñetti mbir yi nga xamante ne tey ñaari xamewuñu ko li nga xamante ne moo di askanu Sénégal hmm. ndax tey. dëgg la Sonko new fa ñu may ki nga xamante ne moo di kàddu aji Sarr mu daal di nekk di wilim pande li nga xamante ne mooy ay kàddu yi nga xamante ne yu teggi new li nga xamante ne sénégalais ñun boo xoolee ñun sénégalais fu ñu nekk. Hmm. ñun diine bi lañ daal jël teg ko à la base dëkk bi dëkku diine la. c'est-à-dire euh, des mœurs. am na li nga xamante ne ay kàddu yi mu génnee rek dëgg la criminel bi lu mu mm, procès bi lu mu neex war na ko mun a wax mais lu mu néew néew néew. ku demul ba am ay preuve teg ko si ko taab lan lañ la mën a permettre nga daal di jël ay kàddu yu bon nga dal di koy teg di koy wax ñëpp di ko dëgg ay kàddu yi nga xamante ne xale yu ndaw yi tey sax am nañ li nga xamante ne moo di portable dañuy dégg si réseaux sociaux bi ñuy dégg ay kàddu yi nga xamante ne tribunal la jógee. Hmm. di fuite di dem à l'extérieur ba ay ndaw di ko déglu. muy changer seen mentalité muy changer li nga xamante ne moo di seen xalaat. Hmm. muy li àndal si li nga xamante ne lu. tegginewul benn yoon est-ce que ñun war nañ mën a nangu ak valeur yi nga xamante ne jigéen am na ko mm-hmm. est-ce que tey li lañ nangu jigéen sénégalais ak fu ñu leen teg ak ñu doon jigéen ñi nga xamante ne ay jigéen yu responsable jigéen yi nga xamante ne amuñu fenn Sénégal rek lañ mën a yem. Mm-hmm. baax tabe liggéey. Mm-hmm. tey jigéen yooyu est-ce que war nañ mën a nangu benn jigéen nekk fa nekk fi nga xamante ne seen position boo xamante nekk nekk nekk foo xamante ne daal am maanaam yëkkatiwul u jigéen benn. tegginewul ñaar. ñett mi ngi yàq li nga xamante ne moo di valeur jigéen. Hmm. te war nañ est que war nañ mën a taxaw di di nangu loolu ñun. Hmm. c'est clair alors c'est clair temps bi moo ñu xaw a xoj.